defe naa ne loolu waxaat naa ko te jàpp naa ne dinaa ñëw am fi kër parce que Gambie ak Sénégal benn réew la maa ngi lay yóbbante nuyoo ci suñu président le président Adama Barrow di nuyu waa Gambie yépp di nuyu sama xarit di ñaan li ñu fi wax tey yàlla na mu am lu ko ëpp muy Bakary le ministre des sports di nuyu le doyen Sène di nuyu le ministre de l'intérieur di nuyu le premier secrétaire de l'ambassade du Sénégal en Gambie di nuyu it suñu xarit notre jeune frère et notre ami muy Moussa Cissé di nuyu le général bi toog ci suñu wet aussi di nuyu mbokku Gàmbi yépp góor ñi ak jigéen ñi di am mbégte nag jël kàddu fii nga xamante ne bés bu màgg la boo xamante ne le président Moussa moo ko xalaat ànd ci ak journaliste sportifu yi maleen di sant ci invitation bi c'est pas la première fois c'est la troisième fois benn bi dañ ma représenté yenn yi benn bi ñëw na tey dellu na naa loolu nag li tax mu am mooy dama jàng lu bari ci wetti moo jeune frère le président de l'association nationale des journalistes sportifs Abdoulaye Thiam et doyen Pape Sène ak doyen ñooñu gën a yàgg ci mbir yi waaye war nañoo xam ne benn ministre des sports mënta liggéey lu am solo te àndul ak journaliste sportif yi tey kàddu yi foofu la jëm te xam naa ne votre ministre des muy mon frère Bakary nga xam ne ñëw na ba Fatick fa ma nekk maire nit la koo xamante ne bu ñu ko jàppalee dina dem mais il faut que moom itamit comme ni ma leen gisee ñu toog nii il faut que ñu toog évaluer parce que journaliste ku bugg a dégg lu baax da ngay déggoog moom soo déggoowul ak moom mën ngaa def lu baax ñu bindal la leneen lu tax nga nekk ci di ko rectifier faf ndam li dem da ngay ànd ak ñoom ñuy wax lu baax day tax régime bi gën a taxaw day tax président bi am jot pour mun a liggéey day tax ministre bi am jot pour mun a liggéey loolu li koy andi mooy ñu mettre journaliste dans d'excellentes conditions ñu mun a topp équipe bi lépp lu ñu xam ci information bu baax ñu joxe ko fu ñu gis loo xamante ne day tax équipe bi du am doole ñu wax ko pour ñu gaaw ko rectifier donc tey fii ci Gambie ni ko Ablaye Thiam waxee bu ñu jëlee li ñu jël yépp ci ay ndam ci ay raaya ci réew mi ci Afrique ak ci monde bi c'est parce que dañu ànd en parfaite collaboration avec les journalistes sportifs du Sénégal kon monsieur le xam naa ne yaa ciy liggéey waaye li may ñaan rek mooy na journalistes yi jàpp sénégalais yi jàpp bu ñu dajee ku fële ca Yamoussoukro su ko defee ñu match nul fexe ñu éliminer ay Cameroun ak yooyu su ko defee ñun ñu jàll loolu moom mën loolu mën naa nekk loolu li koy indi rek mooy lii ñu def nii parce que ndaje mi ndaje mbégte la mais gis naa ne ndaje bi bu amee dinga nga bàyyi sa jot yëpp ñoo toog ànd ci ak waa Gàmbi ànd ci ak gan loolu nag dañ ne ci sant bu baax di la féliciter wax ne première dame yi lii lañ war di def bu Sénégal nii lay def bu gàmmi nii lay def donc première dame yi nii lañ war di def dugg ak xale yi ànd ak nit ñi ànd ak sportif yi su ko defee nit ñi xam ne intérêt bi yëpp mooy nu ñuy def ba réew mi dox Moussa dama la bëgg sant ci say kanamu mbokk ci cofeel gi ak consideration bi nga am ci man mënoon nga ne journal sportif Gambie nga booy def nga yemale ko Gambie waaye yow bokk nga ci ñi nga xamante ne Gàmbi nga dëkk waaye jàppe naa la comme frère ku ma bokkal ndey ak baay te bët boobu laa lay xool parce que suñu relation amul intérêt relation cofeel la te yàlla tax moom moo waral lii yëpp ma lay gën a dénkaat nag doyen Koumé dina dénk la doyen Sène xam naa ne mu ngi leen di jàppale waaye dina denk le président africain ki nga xam moo jiite journal sportif bu Afrique muy Abdoulaye Thiam il faudrait que Coupe d'Afrique bi journal sportif yu Gambie yi ak yu Sénégal yi liggéey ci lu am solo ci diggante réew yi ba nga xamante ne xar kanamu Gambie ci coupe bi ci Coupe d'Afrique bi ñuy dem dana gën a rafet mais xar kanamu Sénégal aussi dana gën a rafet président Adama Barrow ak président Macky Sall. def nañ li war a def ñëpp xam nañ ne ay xarit la ñu ñëpp xam nañu ne bëgg nañ senegal ak Gambie di gën a jàppante kon bu yàlla defee tirage boole ñu Gambie ak Sénégal ci benn pool dañ ko war a utiliser mu nekk loo xamante day gën a defar diggante ñaari réew warul nekk dara bu leen mënoon a abal Sadio Mané sax dañ leen koy abal. su ko defee ngeen dugal bi yu bari ñu mun a éliminer ñeneen ñi ñu mun a ànd ñoom de continuer eh, li may jeexale nag mooy di wax ndaw ñi ak suñu xarit soxna si bi muy liir léegi wax na fi lu bëri lu ñu def waaye du looloo li ci gën a am solo du looloo ndam nit mën na ko am waaye benn nit mënul am ndam li taxoon ñu am ndam mooy ñun ñëpp ñoo ànd fédération taxaw journaliste yi taxaw supporters yi taxaw état bi taxaw ñun ñëpp ñu joxante ko loolu moo indi ndam bi loolu nag Gambie mën na ko def Sénégal waru ko bàyyi ñëpp ñoo war a joxante loxo pour mën def seen kon maa ngi sant journal sportif bu Sénégal yëpp namoon naa leen fii laa leen gisee mais buñ demee Sénégal bu ngeen may gis euh, di nuyu it bu Gambie yi di leen souhaiter en tout cas une belle soirée euh, di ñaan rek c'est la dernière demande moom lay ñaan mon ami Bakary comme yàlla def na tey man maay président COP 9 ñuy xeex lu wàllu wàllu drogue ci sport maa ngi lay tàllal loxo pour que Gambie pour une première fois ñu organiser une réunion de haut niveau bu ñuy defee fii ci Gambie loolu dafay doon am solo ci fi ñu jëm parce que sport dañ ko war a seetal ba nga xamante ne drogue du ci dugg ndaw ñi dañu bari te bu fekkee ne ku bëgg a def sport da am looy ñam pour su ñu ko xeexul dinañu dem ba mu nekk jafe-jafe ci réew yi nekk jafe-jafe ci tàggat yaram. loolu nag su ko Gambie defee dina nekk le deuxième pays après le Sénégal di organiser réunion bu mel noonu parce que Afrique kenn mësu ko fi organiser y'a que sénégal Sénégal qui l'avait organisé donc ñaan naa comme Sénégal def na ko ñun dinañ la jàppale dinañ ci ànd su ko defee ñu def ko Gambie set monde bi yëpp dinañ xam ne 192 pays yi ci bokk yëpp dinañ xam ne ñu ngi Gambie te li ñuy liggéey pour àdduna bi la loolu am solo la ci diplomasi waaye lu am solo la ci lii nga xamante ne moom mooy xeex dopage ci wàllu tàggat kon maa ngi sant ñëpp di gërëmaat bu baax Moussa di la sant bu baax boo joxee lenge yi nag boo buggee noppaleku ab da nga koy àndi senegal su ko defee man man danaa ko toppatoo ba mu ko ba mën a dellu si mun a jàppalewaat ñi nga xamante ni ñoom la fi bàyyi maa ngi leen di sant leen gërëmaat sax